médecin bi faj lay def waaye wéral yàllaa koy def lam yen hu nii walay sa yen hu jasadi newuñu day kenn kenn de moom de déedéet du kenn kenn du moom waaye moo ne lam yen hu nii walay sa yen hu jasadi daa ay tabibin aw azan aw mufsidi sëñ bi sax excellence maa ngi lu bayit yi kenn wërta jàkkaarloo yow di jéem a wax ay bayit waaye murit a noonu murit bu dimension ñëwee nanga ko assumé loolu mooy murit te daf ni uri li wacc maliki sabila kulla muridin sadiqin nabila murit rek doyul murit saadix rek doyul waaye muridan saadiqan wa nabilan kooku lay won yoon loolu moo tax kenn wërta taxaw ci seen kanam di wax waaye danoo bëgg a baaxi ñëpp li nu gëm baaxi ñëpp li nu gëm nu mag ña daan def taal fee ab sébb muy bérax béraxi nga dem gis ku ni ca cëpp di cëpp cëppi yërem du tàkk du lakk loolu daana am lu tax kenn mënatu ko mbaa kenn defatu ko lu tax kenn mënatu ko mbaa kenn ñemeetu ko loolu la nanu seetaat sunu bopp waaw ngëm moom garab la dafa am lu koy suuxat garab garab la dafa am ndox mu koy suuxat muy màgg man de bu ma xalifa bi ne woon neel jógal ni cëpp Iran mbaa nga ni cëpp Chine mbaa nga ni cëpp itali ma def ko gis nga fi ñu nii nii c'est l'intention qui compte nga baal ma ndax man samay wax dafa xajul fii wallahi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim rasul moy sauver aduna bi moy sauveur de l'humanité il est le sauveur de l'humanité wallahi moy sauver aduna bi moo ne jutta bi mufradin lana faaxal jumal khudta lana mo jëla jëysin wa amal du ken te ken du rafan yi iqdaamu xayri rusuli rafan bihi wafaqtu kulla mursali du kenn te kenn du moom dëgg la état yi dina ñuy solidarité mondialisation dina ñuy solidarité Nations Unies noonu les chef d'état noonu waaye wallahi ku tedd ki dafa sa dajale téere yi yu bari am ko mu woone ko wutal sa ñetti moroom ngeen ñëw ñu ñëw mu ni dem leen jal ko fee ñu jal téere yépp mu ne lakk leen ko ñu lakk téere yépp buy fanaanee tàkk bu bët set mu woolu leen lépp doon ab dóom jox leen digal ku nekk jaar ci xebla ñuy ëmb di ko sànni ngelaw li di ko yóbbu di ko wisaare ba mu woo leen ni leen xam ngeen lu ma ci jubloo ñu ne ko déedéen mbàkke mu leen malaayika yi dañ koy jël aj ko mu tim jaww mu tim àdduna bépp fu ñu toog di ma wax taane ñu soppi ko aw yiw di leen ko xëpp fu ñu toog di ma ŋàññee di ma fa ŋàññi mu soppi ko aw ay ñuy ñëw di leen ko xëpp